lab rek mu ne sëñ Tuubaa di maanaam dex ku dem duy ku sóobug dex ku sóobu ne mes bu génnee xam borom sëñ Tuubaa mooy maanaam dex ku dem duy ku sóobu ci dex bu nee ku sóobu téwe boobu te wéy te aw ca yoonam mu feesal ci ay leeram ba foofu di duwel moroomam mbokk ku bëgg a wéy ci li sëriñ tubaab bëgg bëgg a wéy ci war may Tuubaa ba duwel say moroom da sëriñ bëgg nga aw fa ndox nag mu ne ku sóobug dox na xam ndox dof dof bi yow kon kii dox kii nite moom duxun mi wax mu ne ki dox mi ku sóobu dex déglu faw talab te doo duy doo set doo setal doo xam borom ba dëkk bi ku saggan sànq faw te lab te doo duy xam borom tey hmm? ma ñi mën a jàngale xool mu ko tënk li ma doon lépp indi ko benn bay tënk saggan ne ci dëkk bii di def lu neex naqari sëriñ bi mu di naqari yàlla ku fi saggan xotti war may tubaab sànq faw te lab doo duy doo set doo setal doo xam borom tax may dégg sëñ Mor mu ne mele yi bàmbaa ngi waaju xamul na déglu te roy roy lu jikkoom ya moo xam borom kon ñii lañuy ñuy roy ñi du xar baax da nga jëm jéem nu sëñ Tuubaa nu mu naan def jar jara di jox aji laaj di dimbalay dëkkaaleem du tooñ te tooñ mu jéggal ngir borom <laughs> subhanallah ma ñëw baax di jox aji laaj mbokk xeel ci loolu royal ci loolu di dimbali ay dëkkaaleem royal ci du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir boroom di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soof ku dul koy moro borom ku ko bañ lay day may ku ko bañ loolu mbokk mbokk jikko ju baax ma ku ko fañ mu walla neexal la safoo koo xam ne def na sëñ bi moom safu ma ku ko soof ku dul kuy mooy borom kuy mooy yàlla nag suñ tubaab moom mun mun ak yow hmm? ko war mooy tubaab nga sëñ bi ne mbokk na ci war mooy tubaab lu wax kenn du loolu du dëkk muy saaga yi mag yi xew léegi nga xam ne gone yi ndaw yi sax nangam nangam daanaka saaga lañuy ñuy añee kër diko deg ci seigne yaay buñ lay wax dara sax dañ naa ndey ndey mu ma ndey mu mako ko ndey mu mako wane ko tuuti koo xamni ci xam nga ko daara naa la ndey ndeyam nangam ci ndeyam la koy daan be ndeyam nangam loolu seigne bi liko gëna gën a ñaaw kenn xamu ko sëñ Tuubaa ne wala taqul li ahadin kasabta aw xulta xayral xaq aw aqtata bu wax kenn da ngay fenn wala loolu du dëgg wala jóom ko mii na la salam ni wax ju baax bokku na ci war ma tuba nga minaas la mi wax ju baax aw yiw nee na ci ngay amee li nga bëgg te jëlañ lay fekkee la waaye bul àndaaleeg sant boo bëggee jóg ne yow mii di àndandoo di wut di wut moroom di wutu maas sëñ wutal na la pour nga xam Tuubaa dëgg lii sëñ Tuubaa santaane mën a xam war mooy Tuubaa bul def ko jot àndal mu ne wala tustaayib in aratta suxba saafafaha aw asadin aw rax ba àndandoo àndandoo boo xam ne dafa dafa kannas ku kannas rokkusu bul ànd ak kii soli yéreem xaw a dese ci mbedd mi de kannas dëgg mooy der ku ku ku sol mbubb mu set hmm? soli sol lépp waaye du wax lu yiw du ko def kooku mooy ku kannas ku rokkusu suñu yi bul ànd dana wala jëmm ju añaan joo xam ne ku mu gis nga yor dara du ñàkk bu sañan tey du fanaan ak yow nee na kooku wàcc ko fa aw raxbatin wala borom xemam teef waa joo xam ne lu mu romb bëgg ko tii si sàngam sëy bu ma ci am daal yi génn li mu ci bëgg portable bi dagg li mu ci bëgg sëy mën tawa xam bi ma ko lu ne nga ne bu ma ko amal sëñ tuwaa nee na kooku wàcc ko fa lu mu tànn aw raxba borom xemam teef sëy ni mu ci bëgg li may war may wala tu jaalis xayra man bii tasta diinan aw aqlan wa aqlan abadan tanal mar nee na bul toog ak waajoo xam ne bul toog ku dul koo xam ne dañ ci dolli koo sa diini ku lay doon diini rek day ànd ak moom ak ak ak borom moom xel nee na kon da nga am li nga bëgg sëriñ Tuubaa nee na xibaar nañu ni nit mi ngi ci diiney xaritam nu xarit la mel rek la la mel moo tax ki nga ànd loolu wala fa ko wan ma sa xarit ma wax la sa jikko ah loolu yéen wolof yi ñun wolof yi noo ko wax wan ma sa xarit ma wax sa jikko ki nga xam ne rek yéene bokk jikko sëñ Tuubaa nee na kon ba ànd ak kooku booy ànd bu ànd ak ku dof bul sàkku bul sàkku ayib bi nit ñi di xam sikku nit ñi bul weeru ayib bi nit ñi foog loo xamul nit wastab ko nit nangam ab man di ngeen nangam balaa ci nga woote téléphone ah sama sama sama téléphone dama ko liiru li dal jiw xanaa yëgoo ko nga xam ne yow xeet nga waxtaan bu ñu ko defoon sax waa ji liiriwu ndax bëgg a siiwal mbir mi hmm? suñ tubaab nee na bàyyi xotti sutura yi sutura yi nit soo ko defee yàlla xotti say sutura xotti say ñaaw ñaaw war na tubaab dëgg bul xotti sutura si jàmbur mu ne na ngeen di tudd yi rafet ci nit ñi nit ñi am na ñu rafet la waaye nit kooku ngay waxal lu ñaaw am na loo rafet la ngir yàlla waxal lu rafet la te wàcc ko lu ñaaw wàcc ko boroma bul ayibal kenn benn benn waxkat dafa wax ne uhibbu makarimal axlaaqi di man sama góor góor mooy li ma bëgg mooy ma rafetal sama jikk ndax damaa bañ ku ma ayibal damaa bañ a ayibal ñii ndax dañ mooy ayibal su ma gëstoo njëfi nii dañ may sikkal kon moo tax man li ma sànn mooy jikko ju rafet rek wax ci yëfi nit ñi mooy sëñ Tuubaa ne xamal ne wor wor bokk na ci wor moytu baax nga moytu wor ab jigéen ak wax lu dul dëgg kooku mooy jàpp ko waxtaan nee na moo ca ko mbokk yaa mi toog naan toog buy dox déglul sëriñ Tuubaa yàgg naa di wax ne toog muy dox indi jumaa ji indi wut jumaa ji boobu kaddu ëpp na murit di ko jëfandikoo toog muy dox indi wu fi raay bi toog muy dox sañcu Tuubaa toog muy dox sañcu Daaru Musti toog muy dox sañcu Daarul Manaan toog muy dox sañcu Njaay toog muy dox sañcu fenn sëñ Tuubaa ne wax lam bi anna al majda laa yunaalu illa bi qadril kanni fi baqal nee na teraanga du sukk am mukk lu lu ci coow waaye nga bëgg a tafale wax sëñ bi nag naan toog muy dox di ko jëmbat ci nii sëñ Tuubaa ne moom tiraanga dëgg mu ne su ko am ci lu dul coono dëgg lu bàyyeegu ma de lu bëri laa ci indil ci toog muy dox bi xadril kaddi taksibul mahaali wa man talabal xuraa sahara layaali suñu am di dégg nga wax nee na kemtulaay li nga fàggoo sab coono noonu sa kawe noonu ngay noonu nee na noonu ngay amee kawe kemtulaay li nga sonn rek noonu ngay fàggoo sa kawe ku sàkku ak kawe bëgg ci doo doo toog de saxara layaal yi da nga foog guddi yi da lay jaral bu guddee nag nga jaamu yàlla nag suba ci nga liggéey hmm? yamut foofu de تروم المجد أو يدقل واي يوم لا تضميد من تروم المجد يوم يوم مجد تروم المجد يوم تكفران سمت suma suma tanaamu lay laa ba ngay nelaw guddi ba mu jeex bëccëgee ngay jaaxal ne toog mi dox sëñ tubaa ne laxat at maxta nafsaka fil muhaal xam nga xale yi dañuy wax yaa bëgg lu yomb sëriñ tubaa moom daa daa sotti baat mu ne la yaa bëgg lu la jomb dégg nga de laxat at maxta yaa xemmam loo nafsaka sa bopp sa bakkan filma xaalis lu ko jóg yow mi toog ne damay toog mi dox bu guddee nga nelaw ba jën ba ba yor yor bu ba tëgee nga toog toog nga ne dama bëgg toog mi dox sëñ Tuubaa nee na la yaa bëgg lu la jomb xale yaa wax lu la yomb lu yomb amul fenn moom nee na lu la jomb nga bëgg loolu fi laa jomb mun tam fe